dal leen nag jàmm sur YouTube Aliou Vision yi te ñu ak yéen ci beneen vidéo te nag dañ leen a indil 5 astuces Photoshop bu fekkee yow niveau nga si Photoshop maa ngi lay invité à ce nga seetaan vidéo vidéo bi jeex mais tamit bul fàttee abonné aimé commenter partager kon fii lay xewee ci Aliou Vision on va ñu dem. العقل المفيد voilà comme ni leen ko wax ci début de vidéo bi yow mi nga xamante ne si yaa seetaan te nekk débutant ci photoshop tey dama laa bëgg waxtaan ak yow ci cinq astuces yu yoo xam ne dina la jàppale nga mil logiciel bi di Photoshop ndànk ndànk léegi lu ñuy def ñu ubbi suñu logiciel Photoshop voilà léegi dañuy ñëw def créer voilà léegi ñëw naa fi nga xamante ni si mooy fi mu war a régler samay paramètres pour mën am sama interface léegi fii koy xool maa ngi am li nga xam ne mooy bind fi ay personnalisé personnalisé personnalisé taay yëpp man maa ko fi def maa fi créer ça man maa ko personnalisé léegi fii nga xamante ni si mooy impression photo gis yëpp dafa am ay taille standard yu ñu fi bàyyi léegi fii maa ngi lettre lettre moom moo defar huit euh, huit euh, largeur huit hauteur onze sur par moo defar xam ne mooy cent parce que dafa nekk loo xamante ne dañ koy tirer couleur bi bit c'est di c'est léegi fi nga xamante ne si mooy suñu taille bi fii. te dañ koy YouTube mille deux yor léegi boo xool résolution bi moo defar fii soixante parce que par web la voilà par web par téléphone daa ko par kii laa koy utiliser par YouTube laa koy utiliser kon taille bi jarul muy fort nekkul lu ñuy tirer quoi nekkul lu ñuy tirer. ndax boo xoolee fi impression gis nga moom ma dafa résolution trois trois cent léegi bu fii la moom garaawul mën naa kaa def nga xam ne mooy euh, taille soixante douze bi ma laa koy bàyyi par défaut léegi fi nga xamante ne si tamit mooy li nga xam ne mooy euh, couleur bi couleur arrière plan bi fii bu neex nga def ko noir bu neex nga def euh, couleur arrière plan mais bu neex tamit nga personnaliser ko def couleur bu neex. voilà kon ni su ma neexee def jaune bizarre voilà def ok créer léegi réglé naa ko pare lii moo nekkoon li nga xam ne mooy première euh, astuce bi léegi deuxième astuce bi di détourage na ñuy defee détourage maanaam dagg photo na ngay defee na ngay daggee photo léegi dañuy indi benn image ñu jox leen exemple voilà ngeen image nit ki nit ki dañoo bëgg a dagg li nga xam ne mooy photo kii bi euh, fond bi d'image fond blanc bi ci ginnaaw voilà booy xool gis nga fond bi moo nekk ci ginnaaw léegi li ngay def c'est simple nga ñëw fi calque nga xool nga vérifier ba xam calque bi sélectionné wu na voilà sélectionné wu na pour l'instant nga ñëw fi sélectionné nga def sujet voilà bàyyi ko traité léegi traité na ko booy xool def defal nañu fi ay pointier li nit ki ni ça veut dire que dagg nañ photo bi léegi photo bi dagg nañ ko mais des na boo déplacé wu ni photo bi dina déplacé wu gis am na lu des te dañuy def contrôle Z mooy rétabliwaat ko wala di ñëw fii ci calque bi nga def créer masque de fusion voilà léegi dagg na ko set nga teg sa te mooy sa image nu mu la neexee voilà li mu nekkoon deuxième euh, astuce bi troisième astuce bi li nga xamante mooy pipette voilà. pipette nag moo nekk nii ngeen seen pipette voilà doo nekk outil boo xam ne permettre nga jëlee beneen couleur en dehors de euh, comme ça par exemple suma soxla woon couleur fii nii nga xam ne bu sama logiciel yi couleur yi fi nekk wala en dehors léegi lu may def moo ko sélectionné li nga xam ne bi damay bloqué sama damay bloqué sama euh, souris voilà mooy glissé waa ji glissé da koy téye nag ma ñëw. mu ne couleur illustrator bi laa soxla voilà couleur bi laa soxla marron bi léegi si couleur bi laa ñëw teg naa ko am naa couleur léegi damay bës V sinon rek su ma déplacé pivot bi da koy tegaat feneen léegi ma ñëw xool wax xam couleur la may jox wala ko jox voilà gis nga jox na ma bi nga xam ne mooy couleur illustrator léegi su ma bëggoon tegaat beneen couleur ci kaw illustrator bi léegi damay ñëwaat ci pipette bi ma xool couleur bi. pour man koo am léegi dama ñëw tegaat ko ci beneen logiciel te ngay glisser ngay bloqué glisser wàcc ma jël boulet bi boulet bi voilà léegi damay bës V raccourci V mu dem def sélection directe léegi damay ñëwaat fii nga xam ne mooy tracé ma ñëw dafa tracé ci kaw voilà voilà gis nga ni am naa ko nii ci kaw illustrator mais couleur bi moo jëlee fii voilà li ñuy defee li nga xamante ni mooy li mooy njariñu pipette defet bi nii la pour jàpp beneen couleur feneen indi pour mën a def say tracé wala ngay changer couleur écriture wala sa couleur forme voilà léegi dañuy dem ci li nga xam ne mooy euh, quatrième option bi indi quatrième hmm, astuce bi mooy dupliquer dupliquer calque maanaam def ñaar calque dañuy supprimer benn bàyyi fi bi gis nga boo xool boo seetloo kii bi benn la fi rectangle bi benn la fi fekk tàng ma ko du ma ko soxloon à te même taille laa ko soxla maanaam mënu ma ko tracé waat di ëppalante li nga xam ne mooy taille te lu may def dama dama xaar soxla ba à deux yoo xam ne tolloo te damay def ñu dupliquer rek si voilà def double clic def dupliquer calque tuddee ko euh, rectangle rectangle rectangle 2 voilà moo ma tuddee ko rectangle 2 léegi. bopp attention voilà léegi tuddee naa ko rectangle bi léegi xaaral ko voilà moo nekk nii moom moo nekk nii amoon naa beneen option tamit pour def li nga xamante ne si mooy dindi dupliquer sama calque sans autant que ñëw fii option calque léegi lu may def damay ñëw fii sama clavier ma bloqué alt ma bloqué alt ma daal bloqué ci kii bi déplacé sama curseur déplacé voilà voilà gis nga dupliqué naa ko sama moo ñëw fii kon euh, li nga xam ne ma ràkk ci clavier bi lay ci lu bari sa liggéey day gën a gaaw moo moo gën a gaaw nga ñëw fii def double clic def double clic dana def dupliqué loolu day xaw a yàgg bu bloqué li nga xam ne mooy alt bu bloqué alt bi rek déplacé sa rek da koy copier léegi bu ci topp di création décraquage maanaam nga jël objet bi def ko tuur ci benn image voilà léegi dañuy indiwaat suñu nga xam mooy suñu image léegi image bi dañ cee bëgg a créer décraquage léegi dañuy defar dañuy defar benn objet bu pare benn genre kii bu ndaw léegi dañuy masquer li nga mooy kii bi calque boobu di ñëw fi tracé ñooy tracé ñooy tracé comme genre tableau bu ndaw rek lay nekk. rapidement rek voilà def nii boole ñëw fi calque def convertir objet dynamique maanaam mu nekk benn quoi léegi damay ñëw dama koy copier ko comme rek alte laay bës alte def gis nga def double clic voilà def contrôle clic da def rotation voilà rotation naa ko ni voilà ma ñëw teg ni positionné ko moom tolloo benn ci digg bi pare doo ko juste exemple rek benn exemple bu ndaw rek voilà li xam ngeen ne moom wax dëgg yàlla baaxul mais pour wan leen ne juste nu ñuy defee masque a piratage voilà voilà léegi su ma boolee yëpp dama ñëwaat fii nga xam ne mooy euh, calque convertir leen en objet dynamique encore convertir objet dynamique voilà dem nekk nañ objet dynamique léegi image bi moo nekk nii image bi jël voilà fii nag boo bëggee déplacer texte yor yaatal ko dangay def contrôle T lay permettre nga mën a xëcc image bi waaw léegi voilà léegi dañuy dañuy wàññi capacité bi tuuti xool ba xam position na gis nga position na léegi dañuy def ñu yokkaat ko voilà yokkaat ko cent yi c'est bon léegi nga def double clic voilà bu defee clic clic droit boo clic droit nga def fii ñu masque d'éclairage gis nga créé na ci max d'éclairage ci biir li nga xamante ne ci moo moo leen tracé nii la defaree sax li nga xam ne mooy tableau tableau yi nii lañ koy defaree voilà gis nga su ma defee double clic voilà gis ma ñëwee ci kaw euh, moom laay déplacé ci kaw calcul bi bi ci biir laay laay laay déplacé voilà gis nga nii dañuy defee li nga xam ne masque d'éclairage c'est juste des astuces yu ndaw la rek ñu leen indi tey leen jox di daje ci beneen vidéo jàngeen jëf